mënut a jóg bu yëngatoo mu daw bu yëngatoo mu daw waaw oto bi daa dem looloo tax oto bi daa dem moo doon daw waaw soxna si yoroon ngeen laaroon waaw waaw. waaw waa ji fii la euh, euh, euh, wàcc ci oto bi di tërëf mandi bay tërëf jaar nii laa leen wax. nekk na ci histoire bu yéeme voilà ndaw si dafa sol luñ fànt waa ji voilà waaw. waaye waaw waaye boo dee ñu la teg ci yoon. Mhm. waaw léegi yow li xew fii tey ci garage noo ko jàngatee. maanaam li xew fii nii. waaw mooy lii kii ndaw si ndaw si ko fee mu daw ba daanu. ndaw si daal di daw ndaw si dawaat ñëw ba wut bay wutu provocation mu di ko dàq ni ba daanu fii ab sàcc lañ ko tegoon tuuti ñu rey ko te erreur bu mag la indi bu boobaa nan bàyyi li ñuy def jigéen nit jigéen yoo ko dàq teel di ko dàq di ko dàq ba dugg fenn fi da koy bàyyi